waaw salaamaaleykum mbokk yi yëpp maa ngi leen di nuyu ku seen tur sa tam di nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu Fatou Kemba waa Sam Notaire man la Habib Nia président du mouvement ànd Soxla Sénégal euh, tey dama ñëwoon tey Sam Notaire di seet si ziara sama famille sama jigéen ñi sama groupement yi xam ne maanaam fépp fu ma yëngatu si wàllu social développement ni ñu ànd ak man tey nag comme ni ko xamee dafa am benn musiba bu xam ne bu ñu dal ndax àdduna bi yëpp mooy kon corniche bi ñoon ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla jële ko fii jàmm salaam situation bi gën a doy waar nag ñun comme ni ko ñu xam loolu ñu xam si wàllu social wàllu développement ñëpp xam nañu nag suñu camp fu ñu féetee on est allé du président public ñun dañuy ñëw répondre à l' appel du président public son excellence président Macky parce que moom la ñu accompagner est pour ça tey di ñëw si suñu jigéen ñi tey si imam yi suñu xarit yi indil leen suñu ndimbal bu ñu ñëw sax fekkoon am na oto bi dafa nekk en cours de route mais incha allah indi nañu cinq tonnes de riz euh, cinquante euh, caisses d'huile et de euh, eau de gel ak ay masques pour accompagner suñuy femmes yi xam ne dafa nekk di Sam Notaire ne nag di géejuwaay tey loolu moo a tey suñu taxawaay waaw xam nga li may faral di wax toujours mooy ñun mouvement ànd sàkku Sénégal d'abord c'est un mouvement national d'ailleurs balaa may tàmbali sax bu ma nuyoo war naa nuyu monsieur le maire nuyu ko nuyu tous les élus xam naa que képp ko nga fu nga san ànd soxsal li nga xam mooy Thiès mais Thiès nag mooy maire bi foofu la juddoo mais mouvement mouvement national la du mouvement Thiès bi mouvement national la donc pour dire rek lii nga xam ne mooy def fii fépp xam ne am nañu si ay militants am nañu si ay am di jàmm dinañuy wóor di ko def di tamit di remercier aussi tamit suñu partenaires yi xam ne ñoo ñu accompagné parce que yëpp lu ñu xeeli si wàllu social ñoom ñoo ñu si seen loxo di di ñu tudd na parce que bu ñu tudd seen tour ne ni sant bu baax di leen gërëm. bi parce que aussi dara tamit euh, am nañ fi njaboot si njaboot mooy mooy mooy suñu tante suñu yaay suñu papa yi suñu lañu bokk. loolu moo tax ñun dañuy respecté disposition xam ne moom la autorité bi wax léegi sa ministre de l'intérieur nga xam ne maanaam mesure yi xam ne moom la jël. si loolu moo tax ñun ñi dal ay masque li mo presque ñetti téméru masque accompagner ko ñi jigéen ñi li may ñaan rek mooy ku si nek na nga respecter li nga xamné manam mom moy tax ba bala bi du egsi si yow mooy distance yi foo na nga walu set loolu la ñaan vraiment et puis surtout Guédiawaye vraiment man ci en cœur parce que man mi mbudu dul dara Guédiawaye fi lay liggéey fi la nek di liggéey moo tax sama xel nekk si waa Guédiawaye moo tax moo ñëw indi leen sama ndimbal waaw si wàll wàllu sensibilisation bi sax boo xoolee am na lu ñu fàtte parce que ñun actuellement def nañu ñaar lu mot ñetti junni euh, ñetti junni flyers flyers yi bu leen wax ni que euh, tey la pare xam naa géej bu sama yàlla incha allah à partir de lundi dañ si def wàllam pour lan sensibiliser dañu bëgg sensibiliser la population si wàllu jàngoro bi yëpp def nañ ko yëpp lu nga xam ne maanaam yëpp lu war li li nga xam ne maanaam ko ko def rek yàlla mën na la musal si kii moo nekk si falaise yi et ni ko def def nañ ko si wolof def nañ ko si français def nañ ko si tukulóor def nañ ko si bambara presque moom ñetti junni yu xam ne falaise defar nañ ko cees nañ ko defaree nag commande bi tey lañ ma wax tey nii noonu commande bi pare na mais incha allah rabbi à partir de lundi dinañ ko distribuer fii nga xam ne fépp fu nekk si Sénégal yëpp dinañ ko distribuer pour ñu jot si wàll si